Thank you Bye. Maliye. Gol. Atak. Yeah. a ngi bëre ñi ngi jàppante ñi ngi jàppante ah ñi ngi jàppante ku ci nekk yaa ngi ne tekk di déglu sa morom waaw njaago jàpp na ba mu dëgër bébé jeen tamit jàpp na ba mu dëgër waaw xale yi nañu ku ci nekk naa ngi seet ku ci nekk yaa ngi manœuvrer waaw mais waaw way yóbbu nañ Yakhar Mbaye ma jaaga suñu yaay jooju a arbitre sifflé na xale yi ñi ngi jàppante xale yi ñi ngi ay aywa a ku ci nekk jàpp nga sa ngemb morom ku ci nekk jàpp nga sa ngemb morom ñaa ngi calculer eh mbot ba ah heureusement da ko gis a ah, mi ngi jéem a jël tànk bi Bébé Diène a ngi doon jéem a sàcc tànk bi mu def benn recul waaw ah ba léegi ñi ngi jàppante ñi ngi jàppante mi ngi koy ah, kalba jéem na ko kale ah njaago njaago njaago li li gars yi di wax il a plusieurs euh, arcs dans son carquois waaw allez ñi ngi jàppante ñu ngi jàppante waaw ñoo ngi dégg noonu supporter yi di kocce supporter yaa ngi kocce waaw waaw mi ko koy wax dugal eh jibi jibi mi ngi sëgg ah waaw sigi mi ngi sëgg waaw ñu def ah bébé jën sukk na eh eh mi ngi koy jéem ak ah ah eh, jogaat nañu ñoom ñaar jogaat nañu ñoom ñaar xale yaa ngi bëre bëre bu mag a ah, fi mu toll nii lii mi ngi may fàttali combat Mbaye Gueye Double Less ba waaw ba léegi verdict bi la ñuy xaar Mbaye Gueye Double Less 175 waaw xel combat bi mi ngi fàttali Moustapha Gueye ak ah, Tyson wala Moustapha Gueye ak Mame Diambane wala Tyson ak Bombardier wala Yékini ak Tyson wala Yékini ak Balla Gaye xale yi ñi ngi bëre ñi ngi ne tekk ñi ngi ne tekk ah. njaago siggi na li muy def est-ce na njaago fi mu toll ni moo ñu wan ginnaaw ngem moo ngomb ngembulu zone li ñu ngi tourné waat njaago remplacé na ko aywa njaa aywa bébé jeen bébé jeen jàpp na ñaari ñaari ñaari loxo yëpp a jàpp fi mu toll ni ñaari yëpp ñaari loxo yëpp a jàpp ah Fredo benn loxo bee jàpp beneen loxo bi mi ngi wut fu mu jàpp mi ngi wut fu mu jàpp eh jéem ko kal Bébé Diène jéem na ko kal ah Ndiago reculé waat tànk bi ñi ngi jàppante lu muy def waaw ah, Bébé Diène dafa bëgg a sigeeg moom Bébé Diène dafa bëgg a sigeeg moom mais Ndiago déjoué na ko eh Ndiago eh, ko Ndiago daan na ko eh, ko déet waay Ndiago déedéet déedéet déedéet Ndiago Ndiago bàyyi saaga yi c'est pas comme ça waaw déet waay allez Ndiago daan na Bébé Diène Ndiago daan na bu set wecc ba amul werante waaw c'est le deuxième combat buuri ñoo sabari ndeysaan presse momo ndeysaan di doomu sa Saliou Ndiaye di doomu Saliou Ndiaye ndeysaan dem si yàlla si di doom ci maas Baye Maas ndeysaan moom it dem si yàlla si mais di set aussi tamit ci Baye waaw tey ji bu yore ay sabar ay yoon la saan waaw ñu ngi fii nag xale yaa ngi bàkku mi ngi tuus mi ngi tuus dégg galañ saan waa xoolal ma xoolal ma le président de l'écurie Mbita Ndiaye Mamadou Diop di Boga waaw mi ngi noonu ay événement yu de football yu rëy arbitre bi sifflé waat na ba léegi mi moom jàpp lay wut jàpp ay eh, léegi flexion jël tànk bi bul jaaxle loolu lay def ba léegi flexion de ma jël tànk mais dafa sori waaw dafa sori ay ñi ngi lewatoo ñi ngi lewatoo ñi ngi lewatoo jàppante bàyyante ayca jàppante bàyyante ñu ngi lewoto ci épreuve de force bi lañ nekk aywa ni me ce que làmb ji day jeexee fii jéem na ko mbas mais génnaat na ci bul xaddi bul xaddi mi ngi koy jéem a xëcc mbas ko mais ba léegi eh kal na ko kal na ko ginnaaw ay ba léegi a ba léegi waaw ba léegi waaw mi ngi koy gis Ahmed est en train toutes les stratégies posées par yaa na tànk bi yaa na tànk bi lu mu ko bëgg da ko bëgg wër ndomb da ko bëgg fel wër wër ko ndomb mais ba léegi mais ba léegi xale yaa ngi bëree xale yaa ngi bëree combat bi neex na am na intensité ndeysaan ba léegi ay waaye da koy wër ndomb da koy wër ndomb quel exploit de Ahmed da ko chaise quelle expérience oh. ko ñi ngi waaw Kër de waaw gis nga ko am na lu mu jafal noonu mooy ay waaw Bébé moo nekk noonu di bàkku moo nekk noonu di tuus waaw dafa mel ne moo ëpp public dafa mel ne moo ëpp public waaw caatu baa bi a caatu maaro paatu maaro moo caatu maaro moo ngem boo lu ñuul li waaw ñam bi dafa moo gën a moo gën a sombre ah caatu caatu caatu maaro caatu maaro moo am ah. arbitre bi leen di jox ay consigne waaw ah, maa ngi seen noonu alaaji baara baara seen aywa bég ci yow baara waaw ñu ngi ay aywa arbitre wax na ak ñoom ba pare nee ko pare nga ay ca arbitre sifflé na arbitre sifflé na ci diggante caatu maaro ak caatu ban bi aywa ni ñuy def ku ci nekk ñaa ñu ngi def seeni ñaan aywa ñu ngi lewatoo ñu ngi lewatoo waaw caatu ma caatu ban bi ba jaay dagg léewtoo bi waat caatu maaro mi ngi sëgg rek ne tekk di ko déglu waaw léewtoo benn loxo aywa ayca ayca caatu ban bi ak caatu ak caatu maaro aywa songoo nañu songoo nañu songoo nañu aywa ñu ngi def ay manoeuvre ñu ngi def ay manoeuvre caatu baa bi moo ñu woon ginnaaw noonu caatu baa bi moo ñu woon ginnaaw ay ca ale caatu maaro mi ngi yem a def ay manoeuvre moom it eh flexion jëm ko jël rasu na ko caatu baa bi am na lu muy réclamer waaw am na lu mu réclamé waaw mi ngi wax bi waaw a nee ko dafa niin nee ko dafa niin waaw nee ko dafa niin dama sote ko suuf waaw nee ko dafa niin moom loolu la caatu baa bi doon réclamé nee ko dafa niin ne la yéen ñaar ñëpp nag dem nañ na ay juge am allez le coup d'envoi est donné entre caatu Bambi et caatu Maaro les deux caat ayca ñu ngi lewoto waaw sous les sous de nos divas waaw Adja Saka Fall Adja Ndeye Fatou Sow waaw ñoo nekk foofu ci micro bi di ñu neex yooyu aywa ñu ngi ñi jàppante caatu maaro lu mu bëgg caatu maaro li mu bëgg ñi ngi leewatoo ee eh, dugg ko ee eh, dugg bi baaxul dugg bi baaxul caatu baa bi bloqué na ko caatu baa bi bloqué na ko ayca ñu bëgg a def noonu xale yi nan la ñu bëgg a def aywa ñi ngi jàppante ñi ngi jàppante waaw combat caatu baa bi jàppagul caatu baa bi jàppagul moom mi ngi jéem a bloqué mi ngi koy jéem a bloqué li muy def eh waa ji téye na loxoom lu mu ko bëgg a def ah bàyyeeku nañu bàyyante nañu bàyyante nañu aywa ñu dellu si waat songowaat nañu songowaat dëggante caatu baa bi ak caatu maaro waaw Aïcha eh, lu muy def ba léegi aywa songowaat nañu songo waat nañu songo waat nañu ñu ngi ci manœuvre yi ngi ci manœuvre téye na ci loos bi dindi na ko caatu baam bi dindi ko téye ci loxoom waaw amuñu ngemb ñoom ñaar ñëpp aywa ñu ngi ne tek aywa eh def na flexion pour dugg. contraire ko. xale yaa ngi jéem a jàppante nekk jàpp nga ay ko bëgg a def da ko bëgg a wéyale wala da ko bëgg a mbot lan la ko bëgg a def caatu maar ami génnaat ko caatu maaro jël na ko caatu maaro eh! caatu eh! caatu maaro daan caatu maaro daan na ko caatu maaro daan na caatu baabi dëgg la waa yaraax nañ euh, vraiment waa yaraax namm nañ la waa làmb ji namm nañ la ngay wax lan ngay wax say amateurs yi lan ngay wax euh, say say say say say fans waaw maa ngi sant yàlla bu baax jul si yonent bi sant suma ñaari waajur di ñaanal suma sëriñ yàlla na yàlla yokk ay leeram sëriñ Babacar si ñaanal waa yaraax yépp du nuyu waa yaraax bu baax a baax a baax nuyu adduna ah di leen nuyu bu baax a baax samay mbokk doomu yaraax yi di nuyu bu baax a baax a baax tamit ñi nga xam ne ñoo fi nekk sama xol seet na bu baax a baax ndax lu tax sama xol sedd na mooy que euh, Papa Diop daf ma invité te daf ma invité mooy li naan woo na naa si guxum soow daf ma invité si affaire ma wuy si ko ndax man doomu yaraax la di remercier ñi nga xam ñoo fi nekk ñëpp rawatina nag ñi nga xam mooy DG Assane Thiam maa ngi koy bax a baax di ko ziar bu baax ndax euh, jox na ma billet demal Maroc nga entraîné ma def entraîné yi ñëw mu jox ma fa lépp lu xam moo fooroon moo ko des ba fi ma dëkk waaye yëpp di nuyu ñu fa nekk ñëpp di nuyu Moussa Sarr kala ma ñoom leen nuyu di sama rakk mbër maa ngi nuyu ñëpp ñu nekk yarax yi maa ngi nuyu yu sama rakk suma doom nday sama xarit maa ngi ko sant di ko gërëm hélas maa ngi lay nuyu baax a baax baax toos maa ngi lay fa nuyu baax di leen jaajëfal baax baax baax waaw pour l'instant nii barke yonent yàlla Mouhamed pare naa si tous les plans mais na yi ñëw rek ndax yaraax déggoo li booy yi wax booy dañuy Jackson lañ bëgg tax na joxe naa sama accord. kon yow pare nga pour Jackson bu ma kenn jaxasee kenn. pare naa sama accord. waaw mais ñoom ñoo ñoo tegu seen loxo fi ñu ko war a teg. waaw ku ne xam ne ni Moussa Ndoye raisonnable. man pare naa pour bëre ak ñoom. comme ñoom ñi ñooy wax man du waxuma ñoom ñooy wax man waxuma. te lu yaraax bëgg loolaa bëgg ndax man nee naa la man ndawal yaraax laa. man ndaw yaraax laa. yaraax boo yëpp maa seen mag. lii dañ koy dundal si dëkk bi ay yeneen ak yeneen day amat. yu mel nii mais bu doon ñun mbëru yaraax yi par nañ ñuy entraîné entraînement ñu daan defandoo lépp di préparer le 4 février caatu yarax yal na ko may ndam muy wës jàmbaar muy loosoo muy ama bu ndaw muy ama beneen bi ama bu yarax ñëpp ñoo bokk di entraîné booy jóob ñëpp ñoo bokk di entraîné ñuy remercier ñëpp nag waaye rax yëpp bàyyi ñu kenn honorable ba Babacar Mbengue ñu ngi koy nuyu bu baax baax baax mooy li ginnaaw lu wax nag moom la dañ ko ñaanal yàlla bu baax kontaan nañu baax si ñoom ñëpp le di ko wax ni a am titre te incha allah rabi pare naa pour indi ko suba daaw su ma waxoon pare naa mën naa leen nax mais ren dama pare pour indi roi des arènes ren dama maa ngi doon commencé lamb nag Moussa Ndoye mi ngi doon doon mbër mi ngi doon préparé sama carrière maa ngi mi ngi doon commencé daa noonu gars yi xale laa comme leen doole barki alxuraan màgg naa am naa doole barki yonente yàlla Muhammad daw ma benn combat billahi lazi la ilaha illa daw ma combat pare naa Moussa Ndoye pare na ku xool Moussa Ndoye xam ne Moussa Ndoye pare na ah, lu leer laa la pare na barki Seydina Mouhamed combat combat un mois 15 jours sax bañu ma parce que pare na new ma damay complété rek dem sama yoon di nuyu sama gars yi bu baax a baax Mansour Diouf maa ngi ko nuyu baax amu fay amul jàmbaar ak gars yi ñuy toog amu seen fay parce que ñun benn lañ uh-huh. nañ d'accord ñun ñi benn lañ ñun jaar nañ fi bëri nañ fi bëri nañ fi ay mbabat fii lañ génnee ñun ñëpp fii lañ génnee formation la rek di leen wax gars yi gën si jàpp autorités yi tamit gën si jàpp ñu suuxat ko muy ñu koy décentraliser muy dem sa koñ koñ bu nekk di ko tëgg suñu fondement baax a baax mais mais mais Weuz mais moom fan la teg fan la teg bëtam Weuz fan nga teg sa bët waaw waaw sama bët moom sama bët moom ku teg ku teg sa bët si Moussa Ndoye rek man si yow laa teg bët ñiy laaj Moussa Ndoye ñëpp nañ ñëw jaar ci man ba pare waaw soo ko yegg ci kon yow yaay maay blocage bi waaw comme ni mbuuta li ñu doon wooyee mbuuta ndaxte ku bëggoon dajeeg Mbaye Gueye il mu bloqué na jaar ba pare ah. soo ko yegg si waaw ah, d'accord aywa IMTV ñëw na CPTV ñaw na maanaam sit yëpp yegg si nañ fi tey macha allah làmb jàngoog yaraax moo aye te yaraax mooy gagné kon nag nañ ko bëre ci dal nañ ko bëre ci jàmm nañ ko bëre ci salaam que le meilleur gagne. borom bi acca la jaay noonu que le meilleur gagne léegi xaaral xaaral sunu kilifa daa ñëw muy le député maire de Hann Bel-Air yaa ngi nelaw yaa ngi nelaw daf ko lu ko monsieur le maire mooy tuddee nga waa an belleer yëpp drapeau kon monsieur le maire noonu jërëjëf yàlla la yàlla fay ay ca Aïcha daan na ko Balla Gaye ndax yow suñu fils nga suñu dom nga yalla ñu ngi lay jappal ci ginaaw ak ci kanam inshallah ci lu ba jaajëf félicitations merci beaucoup mu ne ma ci doy mu ne drapeau yi yep sama mère Babacar meng kon koku delloo na Baba Mbengue ndax gis gis na liggéeyam ci biir Yaraax gis kooku bu kon Papa Diop gàtt Pro Stop après combat bu Mbaye Sow Mbaye Sow ak kii nu muy bëre après waaw waaw jaajëf ñaari mbër yaa ngi noonu diggante ki nga xam ni mooy Ada Fass 2 ak ki nga xam ni mooy KTM ñaari mbër yaa ci géew gi ña ngay bëre oh ñaari mbër yaa ngi leetoo ba ñaari mbër yaa noonu macha allah laa ilaaha Ada Fass moo yor ngemb gu xonk li ki nga xam ni moom mooy KTM moo son ngemb ngemb gi bi ñaari mbër yi ngi suuf la sëgg ndax dañuy noojante wala dañuy laxasante eh, eh lamb jekki na tey Papa def na lu rëy dawal ànd arbitre attewaat na leen arbitre attewaat na leen ñaari mbër yaa ngi noonu ñaari mbër yi dañuy leetoo rek ba léegi dañuy leetoo ñaari mbër yaa ngi noonu di leetoo arbitre sifflé waat na ñaari mbër yaa ngi ci géew bi ña ngay sëgg ña ngay njaab njaabu la ñuy def nii fi mu nii ñaari mbër yaa ngi noonu ñaari mbër yaa ngi noonu follow you. lamb ji mi taañu arbet yee ngi waxtaan sen biir arbet yee ngi waxtaan seen biir ayca ca ñaari mbëri jàppante waat nañ ña ngay leetoo ñaari mbëri ji leetoo bi ci suuf lañ ko def maanaam jegul ci kaw ñu ngay njaab njaabu goro combat Ada Fass daan na KTM jël bu amul benn werante Ada Fass daan na KTM KTM jógal làmb Balla Gaye daanu na Yékini daanu na te ñooñu c'est des grands champions ngi wax sànq ba léegi ayca ayca Ada Fass daan na ki nga xam ni moo saw yéenay bëre taaw yaraax waaw mooy bëre léegi Ada Fass Ada Fass kaay am Joxe drapeau drapeau Fall どこで、 থাকো Thank you. Papa Laye moo nu woon ginnaaw Lion moom moo ko féetee Codou Lion moom lañ jàkkaarloo ak Abdoulaye Mbour woon ginnaaw bu mel ne que ni làmb daa ngi dugg gaa yi ñu saaku yi ñu ngi saaku yi ñu ngi saaku yi gaa yëpp seen fini dem na ah Papa Laye Papa Laye moo def xar ñu looyi ah làmb ngoog làmb ngoog de yaa di mbëri ñemente ñu attention attention Papa Laye jàpp na Papa Laye jàpp na ah Papa Laye jàpp na oh Codou Lion Codou Lion moom lañ gën a actuellement

de Lyon lamba jaa ngi nii nag ah gars yi lamba boobu lamba boobu xale yu bëri nañ ñu mën ak ñu mënul di leen di fàttali leen bu lamba ji nekk nañu gën a ñoom moom yaraax ñoom ñoo dëkk yaraax soo dem ñëw gan ah ñaari mbëri ñemente nañu boo leen xoolee lii nga xam ne ñaari mbëri ñu tolloo doole boo leen xoolee lii nga xam ne ñaari mbëri ñu tolloo doole ñu ngi leen di fàttali ak Lyon

di bëgg a utiliser bëgg ci sa kaw morom mais boo xoolee ñoom ñaar ñoom yëpp entraînement boo ñaar ku nekk dañuy doole bi nga xam ne moom nga fas yéene nekk ànd ak sa délégation bi nga xam ni say ñoom ñoo ñoo topp sa ginnaaw tey tey victoire bi nga xam tey moom la jox tey si sa biir koñ doon loo xam tey boo jëloon defe tey si biir koñ day métti yow nga jël tey si jël say waa koñ jox drapeau bi nga xam ne moom ñu tuddee Babacar Mbengue muy suñu maire Yarax bi yow tey ban mbégte nga am ci loolu tey ak ban mbégte nga yox tey sa staff ma sant yàlla sant sama ñaar waajur surtout Babacar Mbengue bëgg naa mu jàppale ko eh, eh. barki yàlla moom la ñuy topp ba ma doon ñaanal voilà déglu leen ko waay déglu leen moom doon s'il vous plaît s'il vous plaît dafa sonn sama kër baay doom bëgg Babacar Mbengue jàppale ko Casamance waaw et moom laa ko tudde waaw bu dee wàllum combat bi lu lii moom sax na kon genre foo quoi parce que man eh, samedi le 3 bi dama war a mbër arène parce que alxuraan gars yi lu ma bàyyi ba fen ma ne damay jël ñaar amaa bëre samedi bi bëre samedi bi kooku ak. Ah. kese dama wàcc adressé ngoon parce que Serigne Thiaw man chaque chaque chaque weekend damay wàcc. yaabu yaabu doole matin. yaabu yaabu doole waaw waaw waaw waaw si kaw wala. di ngay santé Africa. déglu ne boo ko doole. aw ma fayam kër jàpp ñoon Assane waa KTM tamit. bi kay ne découragé rek la noonu waaw mais dina liggéey waaw Issa maa ngi wax félicitation ak sama waay nu mu tuddati. Euh, pro non kii Mbaye Sow nga ne décourage tamit ak yeneen booy yëpp waa di bëgg waa Yarax yëpp naan tey naan tey xam na mu baax maa leen sant di leen bëgg waa ay ñoom kenn ah. pro waa Ganga marché waa maa ngi bëgg ñëpp suma maire yi maire yi suma xale yu ndaw yi barki Serigne Touba di tànk yi depuis kii boo ko jàppalee rek jàppale ko merci gars yi mu mel ni ki ni tey boo gisee événement bu mel nii am fii tey mu mel ni ki ni promoteur Papa Diop boo gisee moom it dëgg yàlla nekk bi koo xam ne bu jàmbaare la mu si commune Hann Bel-Air mu def drapeau yëpp nag tuddee ko Babacar Mbengue monsieur le maire yaakaar naa loolu c'est la première fois mu am ci làmb drapeau yëpp mu tuddee ko Babacar Mbengue kon yaakaar naa loolu am na lu muy woon ci moom xëy na moom après si question yi ñu koy laaj yi daan ko si posé ay question laaj la moo waral drapeau yëpp mu tuddee ko Babacar Mbengue lu kay laaj rek mooy que tey bis bi tey gis nañu tey nu mu mel woote na yaraax yëpp ñëw wuy si ku ne xam na ni lii yombul woote yaraax yëpp ñëw génn wuy boo xoolee si côté culture maire ndaw rabini gis nga leen fi tey ñoom ngi fi ñëw def seen prestation gis nga tey ñi nga xamante ni si ñoom ñooy suñu ci gaynde yi nga xam ne ñoom ñooy simba ñëw nañu ñoomee def seen prestation ku nekk xam na ni tey ambiance am na fi loo gis si làmb ci arène tey am na fii tey aussi disponibilité bi ñu am amul kenn ku ma ci wane la ñàkk nañ lay fay kon wane na yaraax programme programme bi benn programme yaraax te jàpp na ne képp ku ci def rek nga indi sa caméra teg sa def loolu monsieur le maire daal di ko jàmm yaraax mooy jàmm yaraax bu amul jàmm moom ñëpp ci jàmm mosoo la ñu dama remercier yuxu nga xamante ne moom aussi ñaan yàlla mu bëgg ci lii mu nekk yàlla yàlla vraiment bu baax fi ma taxaw nag ba nga xoolee buntu PNA PNA dafa nekk ci quartier bi di def lu am solo ci biir quartier bi parce que mënoon nekk PNA ci biir quartier bi rek téye loxo ndax quartier bi bëri na société yi nekk téye seen loxo mais mu nekkee fii ñu ngi ci jàkk yi ñu ngi ci jumaa yi weeru koor don ñuy joxe fii PNA di ko dugal ci dëkk kenn xamul lu gëm bu baax directrice PNA gërëm monsieur Mbour ak personnel bi yëpp di leen ñaanal yàlla PNA fu ñu bëgg mu yem yàlla moo seen yoon directrice bi nag aw ma parce que kilifa démb 19 heures la ma recevoir heure boo xamante ne heure wàccam la boobu maa ngi gendarmerie boo ma téléphone dama ñëw mën sama ma ñëw mu dalal ma waxtaan yëkkati xaalis jox ma ne doyal ma doyal kooku deful ko man man benn ma fa ma bëgg rek yarax ñëpp xam ne bi nekk fii tey am na njëriñ ci am na njëriñ ak am na ñun ñun sax ñun sax parce que li ma def ci di ko jàppale Babacar parce que mën na nekk doole société def rek monsieur le maire day jàpp kon nag ñu ñaan yàlla lépp loo xamante ne def na ko ci làmb ak personnel bi ak ñi nga xamante ne tey ñu nekk ci gar yee amul kenn ku ci jàpp dañ koy sant di ko gërëm di wax ni jàpp na ci làmb ji bu baax a baax a baax a baax a baax waaw ah, une dernière question bu nay laaj booy am na licence promoteur yii fa laa jëm waaw parce que li métier laa bëgg a def bi ak orange man rek maa ngi dem ci licence bi incha allah xam naa prochaine fois bu may tëdd da fekk mu yem fii daal. kon daal mu am promoteur gën a am leer pourquoi promoteur Guédiawaye promoteur Thiaroye promoteur Pikine promoteur Sacré-Cœur pourquoi Yaraax mu am sama ambition la mooy pour nekk promoteur ma ci mën a jàppale nag dañoo jàppale ma ci moom licence. sama promoteur ci laay xëy ci laay dox incha allah dinaa ko am. kon daal fu mu ne nii man lamb rek laay dem léegi. football sax léegi nañ daal instant bii nii gars yi ñu la xaar ñu la xaar yàgg sax boobu nag waa PNA laa koy def waaw boobu maire bee fi ñëw incha allah nañ dox bu baax. waaw ñëpp gërëm ñëpp di ñaan yàlla jàmm yàgg fi kontaan naa ci ñëpp. jaajëf waay jaa ngeen jëf